pôle urbain jam ñaajo bi mu nekk li nga xam ne moo nekk ci diggante aéroport beeg Dakar promoteur yi moom la ñu xëy def ci song ko ngir nangu ko ci seeni ay borom di leen jaay doole di leen fitnaal ngir nangu seeni suuf bi ci jiitu gendarmerie bu Descos ñëw na gendarmerie avec la Descos ñëw toj seeni ay kër ci benn bis fekk nit ki ak njabootam nga génne ko ak ay bagaasam ci bis bi ci këram daaneel këram ci bis bi terrasse foofu ba mu jeex dàq leen ñu doon ñoo xam ne bis boobu la ñu ñàkk lépp lu ñu am ëlbatiku dooleel ñi nga xam ne ay privé lañ yor alal ba pare bëgg teg loxo ci suufu dugaar yi te nag fekk leen ñoom ñu yor ay këyit yu leer ne ñoom ñoo moom fa ñu ne ñi nga xam ne ni nag ñooy ñay jaay doole di ñëw amuñu këyit sax bu war a wane ne fa ñu ne ak fa ñuy xëccoo ñoo ko moom moomuñ fa dara ba mu jaral leen ñu ñëw dal ci population bi jël seeni ay doom tëj leen lu tolloog 39 ñu yéeg a ko wàcc diggante journal ak gendarmerie ak euh, tribunal ba xale yi génn loolu passé ñuy defati provocation li ñu gën a nag jaaxal mooy bi ñu xëyee gis armée ci sit bi armée ñëw pour liggéey di xoxotal population bi li ñu bëgg nag mooy armée na jóge ci population ci ci village Dougar amul dara lu ñu fay def foofu la fa nekk waa Dougar ñoo ko moom Masamba moomul ma dem ma moomul amul privé bu ko moom te ña fa nekk lañu moom dafa am ay kayit yu leer pick na génn ci suufu jàmbur dëkk ba mu nekk moomu ko na dem fañ ko joxoon mooy fa malaisien yi nekkoon nekk ci entrée dëkku jam ñaajo boo xoolee ci sa gauche fi gendarmerie bu bees bi nekk fa lañ leen joxoon nañ dellu fa ñu nekkoon kenn mosu leen a jox après deux deux kilomètres président nan lay waxee tey génnee décret ne leen fii lañ leen jox ci entrée Diamniadio ñu def lan leen neex créer seen décret bopp mooy glisser de deux kilomètres dem ci gannaaw fa fa gannaaw hôpital des enfants muy Dougar ne fa la ñuy nekk en plus de surcroît des étrangers ay marocains yoo xam ne nii boo demoon Maroc di nga fa suuf. wala ñu jox la fa suuf amul Maroc kenn mënu faa dem di fa xëccoo cent cinquante mètres carrés au détriment de la population nañ bàyyee borom tool yi seeni ay suuf lii nag bakkan lañ ci teg suufu jàmbur yi ñu bàyyi ko tool lañu am di ci bay di ci dund di ci dagg di ci tabax seen ay doom ngir ñu bañ a tasaaroo ngir dëkk ñu fekk leen ñu nekk nag population boo xam ne ni dal nañ am nañ yar xamuñ lu dul xëy liggéey wàcc jàpp seen ñàmbur moo tax boobu ba léegi kenn déggu leen problème bi ëpp na fukki at kenn déggu leen léegi nag nañ leen may jàmm te ñu bàyyi seeni suuf pick-up na génn suufu jàmbur yi armée na bàyyi suufu jàmbur yi te loolu ñu ngi ciy alerter le président de la république Macky Sall képp koo xam ne luy administration jot na li mu war a jot ci kayit boobu ba léegi nag amul benn avancement moo tax ñuy dellu si moom di ko woo comme moom moo leen jiite. te en plus de ça li nga xam ne ni moom la euh, pick-up marocain bi di brandir mooy décret présidentiel un décret présidentiel Massamba du ko changé ma du ko changé ci ni ko neexee bu fekkee dañu nekk ci dëkk boo xam ne dëkk yoon la